llama. Quand kan moo wootee nous ne non violence waaw ñaa mi état reconnaître Nous mi nga à ne moi association nationale pour l'éducation et la paix fasciné à amal cinquième édition récompense aux meilleurs élèves des garderies d'enfants des Dara, des écoles primaires des collèges et des écoles privées de la commune de Anne-Belair et de Dalifort 72 heures nous ñetti fan yoo xamante ne ñaa daf ko fas yéene ànd doog waa ANEP ngir sàggal élèves yi gën a ñu ne nag bis bu tuuti borom lay tollool Ahmed Aïdara ku ñu di bis bi son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal Madame Marine Faye première dame Serigne Mbaye Cham, ministre de l'éducation nationale Alingou Ndiaye ministre des industries Moustapha Diop DRS RTS Babacar Mbengue monsieur le maire Idrissa Diallo monsieur le maire monsieur le maire Khalifa Babacar Sall Santi Agne monsieur Suleiman, Makodoufal Fall avocat honorable député Awanyan, honorable député Fatou Diouf honorable député Mously Diakhaté Madame Mbodj Iden Grand Dakar Madame la directrice Atlas Copco Massour Diop des médias Salam Fall PDG groupe Sénégal. Mamadou Ibrakan, PDG Africom El Hadji Bekaye Kumba Diva Madame Demers SDG Bara PDG Clean Oil ñu ne xew-xew day le 3 le 4 ak le 5 juillet la ca terrain basket bu Dalifort maa la Ahmed ñi ngi ci woo képp koo xamante xelam màcc na ci wàllu jàmm ak éducation di ci woo kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñaanoo violence ak waa aneb ne wan ma say ndaw moo wax ne sam ëllëgu réew man di jeekul nag cinquième édition bi dara duma ko tax a fekk leen ma foofu